ay nit ñi xam te ñoom ay fonds publics war a fay kër gi un milliard fay ko deux milliards pour après ñu gisante waat moom ci suuf ndax ñooñu ay tubaab la wala déet ñooñu ay nit la ñoo xam ci suñu biir nekk nit ñoo xamante ni nit ñoo jël suñu koppar dénk leen ñu nekkoon ay baadoolo yoo xam ne comme man la woon tey jii ñu doxantu ay milliards ci biir réewum Sénégal gis naa ci ñooñ sax ñoo xamante ne ko filmé seen i kër daañ la fetal ndax seen xaalis ñoom ñoo ko liggéey waay mm-hmm. nag ndax ci diggante ñaari at ñetti at koo xamante ni dañ la tàppal ndombal tànk rek la ngay fayee ko mënta ëpp cinq millions ndax mën nga fi nekk milliardaire am déet. waa PCA bu amul BFM ma. réew ci boppam moo jaxasoo woon xëy na nañu rafet njort daal xëy na xëy na dina waaye du yomb daal nañu nañu rafet njort waaye tamit am patience parce que lii yëpp ku ko bëgg a jubbanti faaw faaw ñi nga xam te ñoom nga jàkkaaroon ñu am patience. surtout ça surtout ça. jërëjëf jërëjëf waaw waaw yow ñu ngi lay jox euh, dig daje suba ginnaaw suba parce que ñooy bokk liggéey bi tout le temps ci xel mu sell mi ci xel mu sell mi ak ni kon ko nangoo partagé ak askanu Sénégal yàlla la borom bi la fa cat macha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf donc euh, dégg ngeen Ismaïla Bassek di journaliste nee naa leen basé woo fële ca réewum France ni mu ñu liiralee rapport bi lim ñu explique ci rapport bi mu di rapport Cour des comptes bi nga xam ne ñi mu épinglé bokk na ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ne askanu Sénégal doon jàkkaarloog ñoom ci ay télé ak i rajo di leen wax ne li ñu leen defal li ñu leen defal li ñu leen defal donc euh, comme ni ñu ko waxee ñun rapport rek la ñu liir mais tungu ne du teew ñuy nataal comme ni ñu ko waxee ñii nga xam ne tey jii ñoom. ñoom la ñu yóbbuloon dak yi ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu demoon ci seeni ay dëkk ne leen yéen rekk ci war a jariñu ak askanu Sénégal ñi ngeen ubbil ñooñu tey dafa am ci ñoom ñu ne jonn toog duñu xool ñu leen di xool donc dañuy dem jël ci quelque doomu aadama di ngeen ci dégg nag lu ne parce que ñoom ñu gën a jommi dañuy dem ba kër Samba Kane nañu dem ba kër sàmbakan dem jëli ki nga xam ne moom la ñuy wax Gora ja di doom ci dëkk boobu bari ci loo xam ne nii xam na ko ci parce que nag bu ñuy wax euh, Prodac bu ñuy wax rapport Prodac tey jii fi nga xam ne foofu la ñu jublu woon ci dëkk yi te Ismaïla Ba Seck li ma leen ko léegi bokk na ci kër Samba Kane ni ñuy bëgg a dem ak 1000 mètres carrés yi nga xam ne nangu nañu ko ci askan wa fa yeewoo ne dañ leen di dimbali ngir suba ginnaaw suba ngeen am loo leen jariñoo ba askanu Sénégal ngeen mën leen a jariñ ci wàllum mbay pisciculture ak leneen ak leneen loo xam ne dañ leen ko fay defal donc ñu ngi lay nuyu bu baax a baax sëñ Gora bàyyi leen nga nuyoo ak askan wi ñuy déglu allo. allo salaamaaleykum. aleykum salaam Gora. soxna Thioro maa ngi lay nuyu di la ziar. delloo nañu la ziar bu wér a wér a wér. alhamdulilah ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay. jërëjëf. comme ni ñu ko waxee ci ni ma ko waxee ci njëlbeen gi yéen a ñi nga xam ne yéen yéen a dëkk Kër Samba Kane yéen lañ fa fekkoon jël seenu suuf digee ak yéen ci loo xam ne war nañ leen ko fa mën a defal jëme ci. projet yi nga xam ne moom mooy Prodac ñu bëri bëri ci Sénégalais bi ñu liiree boobule projet dañoo amoon mbégte ci dinañ ko jariñoo waaye tey ano ci ay sunu surprise ñu gis ne lu ñu mel ay dige képp la woon waaye dara amu ci est-ce que loolu dañu koy firndeel góor a jar nga wàññi fi ñuy dégloo parce que mi ngi yàq son bi fi ñuy dégloo danga koy dindi fay ko nga déglu ñu ak sa téléphone. d'accord. Hmm. waaw soxna Corom d' abord maa bu ma si bu ma la permettre ma ma sawu leen. jërëjëf. li nga xam ni dal na seen kaw. ñu ngi leen di ma saw bu baax waa Dakar deux cent vingt en un yëpp. jërëjëf. ah di wax ni yàlla na yàlla leeral lépp. amiin di rafetlu li ngeen di def am na solo lool. Mhm. a ah, xam naa pour ñëw sans plus tarder rek si li nga wax. Mhm. si Prodac nga xamante ni bi nii Kër Samba Kane am bénéficié woon nañ ci. Mhm. nga xam ni président Macky Sall moo ko lancé depuis 2014. ah ci contexte boo xam ne dañu bëggoon a maanaam créer emploi ñuy délibéré foofu si Kër Samba Kane mille hectares. Mhm. mille hectare au niveau de la commune de Kër Samba Kane mais li si yéemee rek mooy soxna Coro. Kër Samba Kane li fa li fa am quoi. bu ñuy mm. wax euh, scandale foncier dañuy wax ni Kër Samba Kane moom mooy terminus bi. Mm-hmm. waaw parce que délibération yaakaar naa ni ñu koy defee dafa am ay procédure su état indee projet ñun dañu bëgg projet parce que projet moo moo moo ñuy soqali mooy créer emploi mooy développer suñu localité bii di Kër Samba Kane ak fépp Sénégal. Mm-hmm. mais li si yéeme mooy d' abord problème ba mu ngi tàmbalee si délibération ba. Mm-hmm. parce que ñun population Kër Samba Kane depuis la Goana nga xamante ne mille 2008 la woon Abdoulaye Wade moo ko lancé woon. ça mm-hmm. fait euh, seize ans depuis booba. Goana ba léegi mu ngi def seize ans. Mm-hmm. projet day ñëw dañuy mel ne dañuy ciblé Kër Samba Kane. ci suñu bopp. Goana boobu ñëw na fa ba jàll jariñu dara. maintenant les terres xamuñu maire bi moom moo ko yor xamuñu ndax si la nekk xamuñu. ci turu commune bi la ko def ñu ñëwaat ñu ni délibéré nañ mille hectares yoo xamante ne bi nii ñun dañu jékki-jékki rek di seen ay tracteur ci suñu ay terre te yaakaar naa projet bu ñu koy def yaakaar naa askan bi moo tax mm-hmm. bu ñuy def projet askan bi ñoo la war nañu waxtaan ak askan bi parce que askan bi dañuy yàkkamti ci projet boobu pour ñëw adhéré ci mm-hmm. mais bu fekkee fekkente dañuy def délibération boo xam ne conseil municipal moo ko def te ñun yëguñu tinuñu te yaakaar naa nag même nit bu la dénkoon sax ay terre waxuma la ak yow loo xam ne sa maam da ko doon bay sa papa di ko bay yow nga koy liggéey ba léegi nii xamoo ci keneen ku dul yow donc même bu fekkoon dañ la ko dénk sax dama am yaakaar ni ñu koy jëlaat dañu la war a prévenir rawatina loo xamante ni yow sa moomeel la. Mhm. donc problème bi mu ngi tàmbalee si délibération boobu nga xam ne dañ ñu délibéré ne mille hectares yoo xamante ni kenn xamul fan la parce que Kër Samba commune bi dafa yaatu. Mhm. boo jógee Kër Samba Kane jusqu'à l'ouest Kër Samba Kane ça fait huit kilomètres donc y' a plusieurs villages koo xam ne dañuy fu ñuy wax dans la vallée de Karkar. Mm-hmm. donc projet bi mu ngi waral nekk benn dëkk bu ñuy wax Fassel man village de Fassel fa dëkk. Mm-hmm. mais bi ñu délibéré bi ñu jékkee-jékki seen ay tracteurs si suñu ay terre ñu jógee en ce moment on était à l'université àndoon ceeg ay suñu ay tamarade jarul may mhm. ñu ñëw ñu posé leen question que ni maanaam lii mooy lan. Mhm. ñu ni ah lii kat projet projet ñu ni leen ñun bañu nu projet condition lañ délibéré terre yi parce que def délibération waxtaanuñu ak askan bi ah defuñu état des lieux conseil dominial wàccul sur le terrain maanaam procédure yi ñu war a respecté yëpp defuñu ko. ba pare nag ñëw de jaay la doole imposé ñu ni leen na taxaw faire face ni leen lii nag na na leer ñun bañu nu mais nañu xam projet bi. naka la ak délibération bi naka la ñu ko defee. Mhm. donc si la ñëw mën naa ni fi mu fi fi ñu ko war a def nga xay mooy kër de Dak bi war a nekk la vallée de Karkar nga xam ni zone la bu bu bu kii la. Mhm. ci wàllum mbay. Mhm. bu bu rentable la foo xam ne dafa am ndox am ay terre yu yu baax nga xamante ni bi nii ñun dama koy wax dama koy répété waat bañu ñu projet. ñun dañu bëgg projet mais dañuy gis projet yoo xam ne depuis la Goana seize ans te vingt ans ñun ci suñu bopp mm-hmm. day nangu teeru paysan yi ah yàq seeni suuf te li ñuy wax ak ak li fa am bokkul léegi nag bi ñu andee projet bi faaseel ñu ñu taxaw ñu ni leen dañu bëgg ñu leeral ko donc ci la ñu xamee ni ñoom peut-être li ñu def délibération bi jaarul ci yoon peut ñu ni dañuy dem benn village bu nekk à côté bu tudd Kayrema Paate mm-hmm. donc si la ñu dem waxtaan ak population yi xamal leen ni leen ah projet bi léegi nekkatul mille hectares vingt cinq hectares la ñuy clôturer dañ fiy defar poste de santé dañ fiy defar day am piste rural dafay am ndox day am courant yéen ci liggéey yéen ay priorité loolu lañ leen gëmloo mhm. donc jël seen vingt cinq hectares yoo xamante ni bi nii ñu ngi fekkoon gerte bi di waaj a ñor dugub bi di waaj a ñor ñebe bi di waaj a ñor ñu dëgër piir lépp boole ko garab yi maasale indemnisé wu leen leen leen de kenn indemnisé wu leen. borom tool yooyu kenn leen dara par exemple boo fa defoon par exemple boo fa defoon cent kilos gerte njëgu cent kilo gerte lañ lay jox jël suuf bi yëpp def ko terrassé ko def ko ay jal depuis lors en mille 2017 bi ñu ñëwee Kayre ba léegi amul benn emploi buñ fa créé bu dul ñaari gardien ya fa nekk ki nga xam ni moom mooy garder la euh, garder la journée l'autre bi nga xamante ni la nuy la fay la fay nekk. loolu moo fa am boo demee si Prodac bi. Mhm. projet mbay boo xam ne deux budget de six virgule cinq milliards boo xamante ne bi nii amul forage loolu moo gën a tey yéeme. Mhm. six virgule cinq milliards mooy budget Prodac bi amuñu ndox tey boo fa demee dëkk yooyu yëpp dañu am problème mu ndox bari na fa dëkk yoo xamante ne nii projet yu mag yooyu yëpp dugg na fa mais ñoom ñoo def seen moyen bopp ak seen i pexe ak seen i ci ak ay bon bolante ba. andi seen dëkk ndox bokk naa si man mii suñu dëkk bi ñu amee ndox léegi ça fait ba cinq mois te noonu la demee. est que. nga jël dëkk yu dëkk yu bari yu bari yoo xamante ni problème mu ndox lañu lañu am amuñu ndox amuñu courant amuñu dara seen suuf la ñu am te ñu ngi lu nekk ca di def li ñu man mhm. mais góora. waaw defar ay wax lu ma jaaxal parce que Ismaïla liir na ko léegi. dak yu kër Momar ah. euh, dak yu kër Samba kan six milliards et poussière lañu wax six milliards et poussière ah. yooyu euh, ñu ngi leen séentu tey jii ndakaaru sax jóge fii daw euh, góor boo ñu mënee nga wàññi fi ñuy dégloo rek parce que mi ngi jaxase wax ji parce que mënoo di dégloo ci retour bi di ñu dégloo sa téléphone mënu nekk il faut nga sori sori ni ngi ñuy dégloo di ñu dégloo sa téléphone parce que day yàq son bi mën nga ko mën nga ko fay complètement mën nga ko fay waaw mi ngi yàq son bi uh-huh. c'est bon ah allo. waaw su fekkee mën nga mën nga fay son bi complètement rek waaw bu ko eh, émission bi gaawant ñu mën a jël ñeneen. léegi ma ni six milliards de francs CFA nga wax. allo oh. allo. allo waaw maa ngi lay dégg. waaw dégloo ma sa téléphone boo ma dégloowee retour bi rek du baax boo fekkee da ngaa yor beneen di ma ko déglu waaw dégloo ma ci téléphone bi ñu waxtaan. non jigéewu ma télé bi waaw. d'accord. six milliards yi nga wax. te man nga ne askanu Sénégal gis gisuñu ci seen bopp man loolu ba tey ji moom a xaw ma askanu Kër Samba Kane village yu ko wër gisuñu ci seen bopp man ba tey ji loolu moom a jaaxal euh, tey jii nga ne dàkki fi ñu waxoon foofu la ñu koy def. daanaka ci emploi yi li ñu doon wax ba tey jii góor yaa ngi may déglu parce que son bi mi ngi grincé bu grincé rek man du ma mën a wax wala ma ma coupé woo sang ma woowaat la nga defar li ma lay wax nii ma woowaat la. parce que man parce que man jigéewu ma télé bi de saxoon naa ko sori quoi. waaw da nga takk écouteur. non takkuma parce que man su may wax son bi day grincé xëy grincé xëy na kon ci man la donc. Euh, mu jaaxal ma lool lool lool. vraiment jaaxal ma parce que boo ne ma ne li ñu woxoon ci créer ay emploi terewul euh, tey jii euh, yéen askan wa fa nekk amu leen ci liggéey euh, suuf si ñu nangu ci seeni borom tey jii jariñootuñu ko indemniser wuñ leen lu dul fay leen day doy waar day doy waar lool lool est-ce que loolu da koy confirmer ne ñaari gardien rek la ñu fa nekk emploi ak li ñu wax yépp moom la fay ci ay emploi ci biir li nga xam ne moom mooy rapport bi Oustaz Soxna Thioro ñaari gardien yi ma lay wax ni ñoo fa nekk te pour Prodac bu Kër Samba Kanu dañu waxoon ni day employé trois mille trois mille emploi lay créé. Mhm. trois mille emplois trois mille emplois yooyu gis ñu maanaam projet bi fa mu commencé woon maanaam buñ mën nañu wax ni projet moor ne parce que projet bi fa mu commencé jógu fa maanaam pour te dire bu dee projet mbay la ñoo xam gerte la ñuy bay wala dugub. wala ñebbe wala maanaam musuñoo musuñoo benn doomu soble wala bu gerte wala dara maanaam jusqu'à présent ñu ngi si travaux d'aménagement yi ci la ñu nekk actuellement nii. est que 2014. soo fa demee ay wen ñu tërale ngay gis ay serre yu àggul ay bâtiment ah te population bi suuf boobu yëpp yàq nañ te ñoom gisuñu ci seen bopp te au début li ñu waxoon si projet bi ñun bi ñu ko déggee rek projet bi daf la doon émerveillé parce que dañu waxoon ni day créer emploi. ah day am ay logements sociaux dafay am ay day am mosquée allo yaa ngi may dégg. maa ngi dégg bu baax yow rek laay dégg. Mhm. day am ay piste yoo ah, dafay nekk euh, projet boo xamante ni ça ça devient la richesse du Baol surtout Touba bi nga xamante bi nii ak Diourbel yooyu yëpp dañ ko si waxoon mais mu demoo projet bi fa mu commencé bougé wut mètre dañoo mm-hmm. waral doomu soble te ci banque depuis 2014 ça fait dix ans 2014 jusqu'à 2024 ça fait dix ans boo fa demee yàq nañ teeru paysans yi ah. Mm-hmm. kenn indemnisé wu leen yàq nañ seeni i terre parce que même bu ñu fa jege woon dem sax kenn mënu ko mënatu ko exploité. Mm-hmm. waaw. d'accord nii ma la wax nii daal noonu noonu la noonu la te te li ci na garaaw maanaam li ñu bëgg wor puisque wax naa la kër Samba Kane c'est mooy terme scandale foncier yi. kon mhm. kon war na am benn audit boo xam ne projet bu fa dee ñëwati ñun day nekk projet boo xam ne mais ñun duutu ñun sangu benn projet parce que ñun dafa mel ni dañoo ciblé projet boobu rek ñu ni kër Samba Kane mille hectares mille huit cent hectares naa après France daal di fa yëpp du ñu ci gis suñu bopp. Mhm. France doy na waar ñu ngi lay jaajëfal góora parce que dañuy njëkkante ak temps bi jamono jii ñu dem jëli ñi ci des parce que dinañ jóge fii dem ba kër Momar Sarr buñ jógee kër Samba Kane. li ma am naa dama doon junj rek sax. waaw parce que ma war a wax yëpp waxuma waaye nag tey dinañ ci gën a yaata incha allah maa ngi lay jaajëfal soxna Thioro. merci beaucoup Gora jaajëfal waa Dakar 221 yëpp kontaan nañ jërëjëf. jërëjëf ñu dem jëli ki nga xam ne moom mooy sang kan moom aussi kër Samba Kane la fekk baax moom aussi mu wax ñu par rapport ak euh, impression ci li nga xam ne nii moom moo di ci euh, dat yu Kër Samba Kane yi euh, projet Prodac bi ñu leen indil ñoom doomi Kër Samba Kane yi naka lañ ko dundee ndax dégg ngeen li nga xam ne moom la góor a tënk ci ñaata hectare lañu jël ñaata mètre carré muy mille mètres carrés yoo xam ne jël nañ ko ca Kër Samba Kane ñu ne déetewaay ñu jël li nga xam ne moom mooy six milliards de francs CFA yu toftal yoo xam ne moom lañu ñu leen projet bi lool la la nar a undu dégg ni ñu ko ki nga xam ne moom mooy Ismaïla Bassek liiralee ci rapport bi mais aussi ni ñu ko ki nga xam ne nii moom mooy ki nga xam ne nii moom mooy euh, ngeen baal ma parce que nag woote bi faaw nii lay euh, demee ñu dem woo keneen koo xam ne nii bokk na ci ñu dem woo koo xam ne dafa dem ba dugg ci kaso ñu dem woo koo xam ne dafa dem ba affaire bi dañ ko cee dugal kaso moom bokk ci ñi nga xam ne nii baykat la woon mu dem ba dugg kaso ci mbir mi donc mu mel ni non seulement dañu indi